nu lay ànd xel mu dal sa yu may jëfandikoo armantiki ay programme armantiki programme lepp lu jigen di soxla ci bir wañam moo tax bëgg na lool comme bi fu armanti tamu tamit di jëfandikoo li di sardingi armanti waye li di tamati armanti lepp lu may togul la tamati tamati armanti rek ma ci doy waye nag sa yu ma jëlee produit armanti jël mu tad bi di ko mariner li may mariner sama yapu wala ginaar gi wala jën yi sama xel mi day dal ndax xamna ni lu ma soxla ci guudama koy jox bañu orné orne bi ba mu jek te kuddu armanti dem ci tar bi day gis nga kuddu armanti mayonnaise ci sama ma defal sama bi dafa bu wax ba dama Lido basmati rice produced specific farms from North India. Lido basmati is perfect for good health. number one selling basmati rice in West Africa. est-ce que jabar. jabar. ah jeeg bu mel ni que na ko am yaa nga uti. moo ma si jaaxal damaa gis yow ni nga mel. waaye jaaxle naa yenn yi. day wax dëgg fa yàlla man da xam naa ne lépp loo ci man lépp loo ci man rek jàppale ma. waaw lu fi loxo def maay sa géwél. tuuti naa de maay sa géwél. te naa la nekkee nii nekkee la naa bul fàtt nag yaa may saako ceeb fa fàttiwu ma ko wala su ma jëndee saako ceeb yow lu ma jënd yow wax. gis na man dama def des fois waxal la ba ñenn xëy ba nga doon defante yow si weeru koor ba sax. ma ne mënuma koo def. yàlla xam na loolu waaw yow déggal déggal déggal waaye ma am laa ilaha man de du wax baatare damay noppi rek ndax su ma waxee baatare moom dafay gën a neex ay sama ndey. billaay problème yi ma nekk la la de xam bu doon lii. yow man man leer na ma ne bari. xam nga ne doon lii ni ko ka nga ne moom pareegu sax. bëy sama ndey yow. waaye bég naa. ndax bu soobee yàlla. am na loo xamante ni man gis naa ko mooy benn sëriñ bu fi nekk. waaw ñu ngi koy wax Baba Galle. Mhm. mooy benn sëriñ boo xamante ni kooku sax ay maamam loo ko jëlee ndax baayam moo ko doon doonoon ci maamam. Mhm. mu ñëw doonee ko ci baayam. ñu gën koo xam ci Baba Galle. moom moo mhm. wax la woon jësi ji fii nam eh, eh, eh, tànji. moo wax la woon jësi ji kooku ay daram dara du jàpp ci. bu xoolal tëddal nelaw na la leer na te boo demee tëddal nelaw ma ne. yow gis nga <laughs> baal ma dem baal nga toj nga fi. baax na xam na ñuy wax gars yi dañ daan wax bu tabaski jotee ba ñu rendi xar yi waaye man du ma wax ba tabaski jotee bu weeru koor jotee ba ma ba ma jënd ay saakoy ceeb ba ñu ñaanalante ba ñëpp naan lii lana lii koy taxawal maam foofu ma am ci def du ma ci am noonu tam nii laay demee nii ay lay la laa رمضان رمضان رمضان رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان رمضان رمضان مرحبا wor yalla bini do ya ñaka jom yo gel ñaka jom ba buga de su ñawé jabar nga ne dom do <coughs> or doy julli yo lo yaakar wa ban reke sa ñaka or bini lol mo la dugal lo aljana di nga xam salam Waalaikumsalam. Iya. maaleykum ah alhamdulillah ñew iya, waaw ana ana sa dafa génn. waaw dafa génn fii. ah ñëw. waaw su ñëwee nag ko bagage yi moo ko moom. waaw baax na waaw baax na baax na baax. waaw bu boobaa bu bëri bi booy bu bëri jëriñ bi bu bëri. yow dégg ma sa aile yi nii. ah. waaw dem naa waay. waaw baax na. doo ma doon. su ñëwee nag ko dem na eh. yow xam nga lu ma la yëgal. kër gi du sa kër. gannaaw tey nag bu jëlee ti lekk di ko teg fii ci digg néeg bi di ko lekk dégg nga li ma la wax du ma sa morom de réew bay bëggante ñi di oom nga lekk teg ko ci digg néeg bi ne danañ dégg ba mu awaat. yabaat nga ni di wax rek di wax rek. maaleykum salaam. maaleykum salaam fii ne. waaw wax. yëpp boobu fii la ñëw tey fekk maa ma doom nii doom na le yow nii la gis sa dogo de na nga def ngay toog si kii bi doy na nga oor fii waaw xamul rek da feebar yow li nga def nii du dara feebar moo tere oor booy yëngu maa tax dégg nga allé suma nee na sa papa wax ma fekk moo tax ma yow nga ne sa papa dafa ñëwoon. ana bagage yi. merci beaucoup andi ma ma xool. loolu yaa ngi loolu yaa ngi mu ngeer boobu day fekk ñu maas ñu nii. yaa ngi nii. ndeysaan. lepp suma bàyyi waxon na ma ko rek na jeeg buy sëy dangaa muñ mun na am tam laaj bu bari bi ma ko laajee ko tax a daw kër waaye li def ni lepp ma gisul ko mo gën mu toog waaw coow coow bi ba ko daw lo di ciow ciow mo moo ko bari di ciow ma dama ko laaj la yow mënoon nga si nga si muñ de su amutoon de waye man nak man nak da benn bes fi na ko jengo vinis bir si yo sa yow sañ sa papa yo sa ngaa jéngu sa papa bu ko na la ñaaw ñaaw bu

ci seen wergu yaram te di suxat seenu dundin li da basmati rice jigen ni mom la ñëpp waxtane li da basmati rice bax ci njabot yi di suxat seen dund li da basmati rice bi le dama ne buri malo yaa ngoog bu ko ken jawale ak li da basmati rice rees ak Dama damaa mën togg lol te ñeme wat te anduma jóge safal bi, duma gi sama bop ci limay def ci bu jeun bu xonko ciur and ak bu dog bi ak kolo bu rafet bi ak caf ko bu amul fenn jonge tomate rek mo ci doy na lol jonge epi sa yoy lak sa jeun jonge doore sa yoy lak sa yap wala ginar jonge arom bi de ko sóoraale sa yoy suur sa bo wol sa ci bi xolal kolo bi mu lay jox ni mu rafetee jongi sofal bi kep kuy jeeg di and ak mom ci biir waañ loo togg dañu nan gongo dina la jox kolo bu rafet dina dorel sa ginar dina dorel sa yap wala mu dorel sa jeun lakk bu rafet ngay am waaye ju ngi bi bii saa sa ceeb bi ba yàq ko di ngay am couleur bu rafet dëgg-dëgg jeeg ci biir néegam mooy dëgg-dëgg ànd ak jonge safal bii ci biir waañam ceebu jën bii nga bëgg wala soosi ginaar bi wala afra bii tege bu la ci gënal rek jëlal waaye ngi jonge safal yéema gunge ci sama biir waañ